ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info. salaamaaleykum suñu mbokk internet yu euh, Dakar net kontaan bu baax a baax ci topp bi ngeen ñi topp. alors xam ngeen ni euh, ay bés yëpp ñu ñu nekk ah, donc benn actualité moo fi am muy Wally Ballago Seck euh, gis ngeen ni voilà def na vidéo wax na yéen ñëpp gis ngeen vidéo ñu diffusé ko euh, fi nga xamante ni moom mooy Dakar Net alors Wally nag daani daal dina officialiser parole yooyu nga xamante ni moom la doon wax et tey si bëccëgu tey yi dafa envoyé ay citation direct ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy tuumaal plainte yi tamit dina ñëw si ñi nga xamante ni ñoom la ko jagleel ndax réunion bi mu def démb si guddi moom ay avocat ku ci mel ne maître Bamba Cissé bi nga xamante ni xam nañ ko maître Abdoulaye Dialikan ak maître Alioune Badara Fall ak maître Souleymane Sowa euh, Soumaré donc di ay avocats yi nga xamante ni ñoom ñoo ko nar a jàppal tànk ci euh, mbir mi nga xamante ni métti na ko loolu alors ñun nag euh, jàngat bi nga xamante ni dañ ko siy def Euh, bon voilà en fait war nañu mën a am plus de tolérance en son égard war nañ ko gën a am war nañ ko gën a tolérer parce que tout simplement nit la comme ñun parce que tout simplement sénégalais la comme ñun mën na juum mën na mën na mën dafa am ay défaut am ay qualité mais lu waaye gàtt gàtt gis-gis xam na ni Wally euh, xolam dellu dara nekk si lu waaye gàtt gis-gis xam na ni Wally euh, voilà dafay partager li nga xamante ni loolu ko yàlla jagleel et nit ñi xam nañu musique bi moom moo fi nekk moom moo gérer relève bi moom moo nekk si kaw ci génération bi ñu nekk nii tentative yi dina bëri galgal yi dina bëri et moom wax na ni depuis 2016 ba léegi waxul parce que tout simplement tamit am na euh, am na loo xamante ni soo ci suñ la koy jiñ bu yàggee boo waxoo boo waxul day mel ni yow la d'accord sol na fi ay tuset sol na fi ay et cetera mais parfois nit ñi dañuy confondre ñaari génération mu Youssou Ndour ak Wally mënuñu ko boole dans la mesure où que ñoom Youssou Ndour fu ñu tolloon boobu mode bi tollul woon fii Wally bala ko sekk dafay euh, suivre mode bi et c'est normal parce que musique ak mode ñoo ànd donc suivre bi muy suivre mode boobu nag parfois nag mën na si di juum mën na juum si suivre bu mu koy suivre mais bu jumee nañu ko baal xool li nga xamante ni mu ngi koy apporter ndax nit tamit sooy ànd ak moom wala nit soo ko bëggee wala nit même boo ko bëggul da ngay xool njariñam ak ñàkk ak lim njëriñ bi mu amal sénégalais ak njëriñ bi mu leen amalul c'est vrai que musique lay def mais à travers musique bi muy def tabaski baa ngi ñëw naturellement dafay ay ay ay nit yu baree bari lay lay dimbali si tabaski bi donc humainement xol bu rafet la as pour juste rek xol boobu rek war nañ man tolérance bu bu gën a gën ko toléré te man li ma si jaaxal mooy ñi koy accuser naan naan balaa euh, dafay jàppal tànk euh, ñi nga xam mooy LGBT yi. nit boo koy accuser par exemple mënoon ni yow nit ki daayira nga bokk daayira tijaan nga bokk doo tijaan. maanaam mënoo accuser nit ki nii dafay jàppal tànk LGBT yi ba pare ni ko non mais pour pour nga pour yow jigéen nga wala doo góor jigéen loolu nag man leeruma donc loolu contradiction la ko en fait donc ñi xamante ñoom ñoo koy accusé nii dafay jàppal tànk LGBT yi donc kon ñoom mën nañ taxaw taxawaay ni ñoom itam ñu ngi koy accusé ni waali lii la quoi donc de façon mbir maa ngi noonu boonoon nañ ko gën a yaatal jàngat bi mais en tout cas fi ñu koy waxee rek mooy ku ci nekk war nga xool sa bopp ku ci nekk war nga xool sa mag bu góor sa papa sa yaay doo bëgg quand même ñu koy chargé tout le temps ñuy wax si moom loo xamante ni euh, voilà moom yow mi nekk moom xam nga ne amul Euh, moom moom mi nga xamante ni ñi ngi ko koy waxal xam na ne amul ndax boo leen xoolee euh, concert bi amoon Médina euh, donc presque Cheikh Tidiane Ba gis ngeen moom mi nga xamante ni moom moo ko organisé woon ñeneen ñi nga xamante ni ñoo bokkoon si organisation génn nañ wax pour pour wane ni voilà moom Wally dafa ñëw rek g donc en tout noonu donc sénégalais yi gën leen am tolérance si Wally Ballago Seck ñi nga xamante ne ñu ngi koy accusé ay homosexuels ak yooyu ñooñu tamit nañu gën a sóoraale ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te les minutes de l'info